non garabité falsification boobu mm-hmm. ay intellectuel ay penseur ay écrivain dañ fiy jaarut li ñuy tuddee mu muruural kiram dégg nga dafa mel ni affaire bu ndaw la te ña ko def ay député lañu ci assamble bi lañ ko defee gis nga man dama ne loolu kese kese kese kese Sénégal bu doon réew mu sérieux loolu dina tax ñu tas assemblée bi wala ñu jëm incha allah non falsification bi kese laa wax def foofu ka fa créé ñaari eh, réglement intérieur te waxu ko nit ñi nëbbu ko nit ñi jaay dooleem kooku dafa da assemblée boobu légalut baaxut. d'accord teguwul ci yoon teguwul ci dëgg. beneen bi aussi jibi mhm. président Ousmane Sonko. mais ñu ñëpp dañ ko war a sant dañ ko war a bàkk dañ ko war a kañ. Mhm. man man man man su fekkoon ne de de assemblée bi nga xam ne ñaari réglement intérieur yi ñoo fa nekk benn bi dañ koo falsifié Ousmane sonk bu nangu woon dem ci li naan dafay def déclaration politique général mais nit ñëpp a koy xeeb dégg nga c'est-à-dire ñoom dañu séq ak nit koo xam ne loo ko bañ bañ bañ bañ war ngaa xam ne Ousmane Sonko ci yoon lay dox te yàlla da koo dimbale dafa xam yoon ñi avocat yi ak ñi yëngu ci yoon yëpp gënuñ koo xam yoon parce que loolu la jàng. Mm-hmm. toujours day am dëgg ci seen kaw keroog bi ñu naan ko demal wuyu ji Adji Sarr euh, capitaine Touré indil ko plainte bi mais def na ko dew ma man député la nit ñi naan na wuyu ji na wuyu ji mu ne leen dem du ma dem parce que mbalaanu kiiraay bi ma am nañ ko dindi ba pare imaginel keroog bi capitaine Touré indee plainte bi jox ko ko Sonko bu tëboon wuyu ji dem gendarmerie c'est fini waaw bu bu demoon rek yàqu. politiquement gis nga lii bu demoon ci lii assemblée naan day am lu muy jéem a wax fii la ñuy profiter ci lii na ko yow fi nga ñëw sax légalut. d'accord beneen bi jibi man damaa jàpp ne ñoom su yeboo ñu xam ne Sonko moom. Mhm. bu leen neexee bu leen naqari dina def déclaration politique général parce que bis boobu ñoom dañ koy daw. Mhm. parce que dafa mel ni déclaration politique général amagul Sénégal. Mhm. ci Sonko lay amee. comprendre nga te loolu. occasion la boo xam ne Sonko waxut ak ñoom kese mais àddina yëpp lay waxal. Imam xalifa jàpp xoolal bés ñu ne tey la Sonko war a def déclaration politique général média àddina bi yëpp fii la ñuy visé. ñëpp a ngi koy xaar. léegi ñii dama jàpp ne bés boobu noonu. ak occasion boobu noonu nga xam ne fa la war a regle waate lu bari. ñoom loolu lañ koy bañal moo tax ñuy kii ñuy ñuy ñuy ñuy wër-wëral nii. Mm. mais ñii Mamadou euh, Mamadou Mame Diop moom. dama ne na mu duggee assemblée baaxut duggin dugginam keroog bañ koy kii gis ne alkaati ak gendarmerie ak yëpp nekk ci biir gis nga duggam nam ñaawee noonu la génnam di ñaawee man wolof mooy wax ne ngan gu yàqu gunge bu sori du ko defar député yii seen diggante ak Sénégal moo yàqu man dama ne alhamdulilahi rabbil alamina dañu daan wax député Macky yi mais ñii Macky Sall moo leen moom léegi Macky Sall dem na nañ tas assemblée bi mu ànd ak ay député dem Maroc mu ngi noonu alors jërëjëf imam xali euh, imam al amin Dramé imam Khalifa euh, balaa may dem ci saawolof euh, ndaxte sànq da donte danga ko dollil additif la woon boo doon jox kii di imam al amin mais mais naka ngay interpréter yow mm, déclaration yu premier ministre Ousmane Sonko concernant li jëm ci wàllu déclaration politique général bi génne ko fii di assemblée yóbbu ko feneen waaw balaa nga may dugal foofu damay gën a appui li imam Dramé wax mhm. dafa poser question ci Euh, le président assemblée nationale Mamadou Mamoun. Mamoun la tudd Amadou Mam Amadou Mam Diop. Hmm. mais Oussa euh, Imaam dañuy dañuy dañuy dellu gannaaw tuuti rek ñu rappelé wu. Hmm. ci jamono yi ñuy installé ak yi ñuy voté. Hmm. xam nga kan lañ choisiroon pour mu nekk seen candidat. Mimi Touré. waaw donc sénégalais yi nañ yeew Mimi Touré la ñu choisiroon. Mimi Touré la Macky Sall choisiroon. Mimi Touré moo def campagne am ba gagné. Mimi Touré moo war a nekk. président assemblée nationale. ñu wor ko. imam fan lañ ko waree. ñëw ba toog di xaar ñu ne dañuy voter pour Mimi Touré ñu yónnee ko benn texte mu ngi may dégg. ne ko ne ko tànnatuñu la. xoolal toroxal jigéen googu xoolal tas yaakaar googu xoolal wor askan woowu toroxal jigéen mooy bu ñu nawloo woon jigéen. duñu ko liggéeyloo ba mu egg foofu tas yaakaar askan wi mooy askan wi nga xamante ni gis nañ kan mooy Mimi Touré mu def campagne ba eggal ñu jox ko majorité ci assemblée bi yow nga ñëw que ça soit muy Macky Sall wala muy keneen ku dul Macky Sall jabaram wala keneen ku mënti doon nga xëy xëy ne askan wi li ngeen li ñu leen waxoon li ñu ñëwoon daagaan si ko ci yéen mm-hmm. ba ngeen nangul ñu ne Mimi Touré doy na leen mm-hmm. ñun seen bu wax jooja jël nañ ko yëlëb ko teg ko fële. léegi ñun li ñu neex la ñuy def mooy ni Mimi du fi doon président assemblée. président assemblée nationale. léegi Mamadou Mamoun la ñu jël teg foofu la weñ gi dammoo ca bañaxaay ga nu ñu koy waxee ci saa saa ki bànjaxaan ga foofu la foofu la ñu war a corriger d'abord. booba la assemblée yàqu. booba la assemblée yàqu léegi nag député yi nga xamante ni. ñoo bokkoon ñoo nekk député opposition bi la ñu doon kaas ak lañu doon xeex ñu naan waaw gii warul woon a jël kees geeg waruñu woon a comporté woo yàq nañ assemblée nationale wi léegi nag résultat yi mooy soog a feeñ fii ñu toll nii ne ña yàq assemblée ñi tas yaakaaru askan wi ñi nga xamante ne askan wi dañ leen a wóolu woon ba pare jox leen lim leen jox ñoom jóguñu woon pour liggéeyal askan wi dañu jógal pour seen propre intérêt. damay dégg ndeysaan ma am gàcce trop ci benn jigéen man oma mm-hmm. habitude di wax dara jigéen mm-hmm. mais kooku dama ko xam ñu dund kan la euh, muy aji mbergaan mbergaan kanute dama ko xam ñu dund ak ngi neew ma xam ko ci jàmbaare ma xam ko ci euh, ku bëggoon jàng parce que ndawam foofu la ko passé ku bëggoon jàng suñu kër ak kër gi mu nekkoon miir moo dox suñu diggante mm-hmm. pour waxal la ne la xam naa aji mbergaan xam nga ko baax xam Aji Mbergane ci jamono bi nga xamante ni mu ngi nekkoon euh, ci biir Pastef maa ngi fàttaliku un bon jour ñuy def benn non dama juum naan Pastef astaghfirullah ah, astaghfirullah APR ah, dama juum bi mu nekkee ci biir APR hmm. ni mu ci doon xeexe ak dëggu gim ci dëggu woon maa ngi rappelé wu moom dana ma dégg te dana xam li may wax jour bi nga xamante ni Ablaye Wade mu ngi leen di créer ne leen ville ak lu ko wër du ngeen fi def seen marche moom bokk nañ ñi taxawoon ci euh, premier les premières personnes yi nga xamante ne taxawoon nañ ci biñ leen joxe autorisation ñu jóge école normale di dem rond cité des eaux wala rond-point jet jàmbaar joo xamante ni keroog daggitu sort la sol moom aji mbergaan mm-hmm. xawma jiin teg ci t-shirt di xeex ngir njariñal réew mi ba yàlla dogal ñu yëkkati réew mi teg ko ci seeni loxo tey bu demee ba mu demee nii man njoortu woon naa ni jikkoy saalum saalum bi ak détermination bi ak dëggu gi moom la war a gën a feeñal ko taxaw di wax loo xamante ni yenul maanaa nee na li may wax mën naa li may wax pour nga ni yenwul maanaa nee na ñoom député askan wi lañ ma wax ko ne ko keroog ba ab Ablaye Dunguru xaw ma Dunguru la tuddee Dunguru Sow Dunguru Sow Dunguru nañ ma génneel image yi Dembourou Sow Dembourou Sow. merci beaucoup nañu ma génneel image yi nga xamante ni taxawe woon na ko assemblée. borom jaasi ji borom jaasi ji. taxaw dafa taxaw carrément ñun ñun député Macky sàll lañu su Macky Sall waxee ñu def su ne déedéet ñu bàyyi waa tey léegi ñu taxaw tey aji mbergaan di ñu gëm loonu ñoom député député nuñ koy tuddati lañ man foofu moo ma ci jaaxal moom ma jaaxal. ngeen jottali ko sama wax ji mu wax ban la ci. d'accord madduhun wa zammun fi makanin wahidin min wahidin li wahidin ajabaani yaa imam bon tey nga wax ne ñuul na suba nga ni eh, gàkk na man loolu mënu ma ko dégg beneen bi ci des beneen bi ci des ji bi nga bañ ma nga baal ma may ma ko rek ngir yàlla li Moustapha wax mhm. leeral na lépp waaw waaye dama koy tënk ci benn rek boo xamante ni sëñ Xaadim bi ma doon defal émission bërki démb rek moo ko tënk mu nekk point bu rafet daf ni mhm. bi dafa bind ci page ne jumaa ji nodd na. waxtu julli tisbaar jot na. ñu ne Ousmane Sonko moo war a jiite mbir mi. tisbaar ji. usmaan jàppe na këram. ba sol ay yéreem ñëw ba ci bunt jumaa ji walla ba ci biir jumaa ji dugg si na mais imam mu xool ni fi ñu war a féete. dafa mel ne masjidu xibla tey ni jumaa ji féetewul penku mu ne leen jubbanti leen seen penku bi. jumaa jubbante leen seen xibla bi bu ngeen ko jubbantee ñu le xaamal ma ma ne allahu akbar. mooy ni bu ñu ko jubbantee ñu xàllal ma yoon wi ma ñëw togg ak député yi. wax leen ni nga xamante ni. noonu laa mokkale Fatiha. wax leen ni ma mokkale eh, ni ñu koy tuddee ti eh, subhanallah alhawal eh, tasbihaat yi wax leen ni ma mokkale ruko wax leen ni ma mokkale sujjot wax leen ni ma mokkale taaya ba ni may paree ci julli gi léegi nag ñoom ñu ne ko penk bi nga bëgg bokkut suñu penk ñun soow bi mooy suñu penk du ñu ko changé. d'accord Ousmane ne leen nag ne na ngeen dem ba mën a changé penk bi baal ma ji bi. s'il te plaît. internet yi ñu ngi may seetaan Ousmane na leen dem leen ba mën a changé destination jumaa ji bu ngeen ko changé wul nag fii ba dat sàngam mooy ni du ngeen ma faat loo waxtu du ngeen ma faat loo waxtu moom la Ousmane wax ñu bàyyee ko xel mooy ni li nga xamante ni mooy déclaration de politique général du ngeen ma ko teree def. bu demee ba demee noonu jumaa ji nee ngeen du ñu du ñu du ñu du ñu du ñu jubal euh, du ñu jublu penku léegi man am naa sañ-sañu génn ci bayaal bi maag jullit yi nga xamante ni dañoo bëgg julli jublu penku te dara doxul seen digganteeg ñu julli jublu penku ma jiite leen ñu julli léegi ñu ne du fi amee <laughs> on verra incha allah. <laughs> li ci kanam raw li gët en attendant Euh, lan mooy sax xalaat ci réaction bi nga xam ne moom la assemblée nationale am jëmale ko ci kii di premier ministre bi di Ousmane Sonko. bon assemblée wala député. Macky bi yëpp assemblée ah bi yëpp dañu wute ay ay xalaat bon man damay ñëw ci li kiy wax euh, imaam fi mu waxee ne ñu joyanti hmm. parce que tamit foofu faaw ñu taxaw fa waxi Ousmane ji lan la. maanaam mooy ne ragaluma def déclaration parce que suñ ko téyee noonu rek day mel ni dafay def benn ensemble boo xam ne daf ko bëgg a sàkkal boppam. te hmm. loolu dafay waroo ak li constitution bi wax. parce que hmm. déclaration politique générale constitution bi moo ko tudd wax ko ca article cinquante cinq. Hmm. ginnaaw bi ñu demee ba 2002 la Wade ñëw dolli ko ci ne da ko war a def ci réglement intérieur te bu ñu wax réglement intérieur quand même nag c'est l'intérieur de.